fu muy liggéey wala nangam ak nangam ban degré la ci am. voilà waaw waaw waaw san nekkul ne yow baabul nga foofu laay wax xam nga tey mën nga tey ci parti tey nga ne noo kii épinglé nañ ko ku wóoragula ba xam moom lañ def nga ne non par mesure de prudence du ma ko fa teg hmm. mais mën naa tax nit dindi ko beneen bi mooy loo xam ne ay nit comme ni ko premier ministre en tant que premier ministre Sénégal mais chef de parti boo xam ne ay nit comprendre man mii damaa nekk di defal di defal ba sonn parce que li fi nekk dafa daf fi nekkoon xam nga nit suñu def politique. Mhm. am na fu ñu warul yegg. Mhm. boo gisee chaque fois bu ñu may laaj ci yenn nit boo duggee yow biin nga ko ci man. boo mhm. duggee ci côté vie privée nit ki. wala ci affaire bas ceinture wala nangam ak nangam doo dégg sama kàddu. man buggaan ñëpp miin nañ ma damay taxaw di ko wax mais moom fi muy yegg ci buy wax ak Ousmane Sonko boo fa yegg. te pourtant nag côté boobu xam nañ ci lu war a wax lu bare mën nañ ko wax mais amaluñu njariñ. léegi nag bu nit taxawee doon kilifa di teg ci kàddu yi nit loo xam ne suñu jëfi tey loolu dafay interpeller sénégalais bu nekk ci ñoom même bu dul woon ak lii waa Pastef fii di def te ñu am ci droit nag parce que dañoo déggoon kooku yëkkati ay kàddu léegi nag mbir mi da nga naan waa Pastef yi bi waa ji comme ni ko président de la République waxee ñoom dañoo nekkoon ci kaso bi. Mhm. Bassirou président Bassirou ak premier ministre Ousmane Sonko est-ce que xam nga. Mhm. ni. Mhm. am na loo xam ne ci biir kaso bi ñu nekkee. am na mhm. loo xam ne ci affaire Modap wala ànd sàmm jikko yi. mën mhm. mhm. nañoo wax ñaar yooyu yëpp. loo xam ne jékki-jékki nañ. jékki-jékki nañ. Euh, dugal ko ci biir. muy le terme genre comme nga xam ne boo ko masaana dégg. mu mën laa yóbbu ci les nouveau droits. mais biñ ko waxee ku mel ni Pape Sa euh, kii euh, Ababacar Mboup. interpellé ma ci interpellé ma Madina Dieng. sama xalaat bi may wax ak Madina Dia avant ñu koy wax Ababacar Mboup dama ne ko mhm. benn parti gën a dëppoo programme gën a dëppoo ak suñu diine mhm. wala suñuy diine mhm. wala suñuy culture maanaam li sénégalais di bañ li sénégalais di bañ yooyu yëpp ban parti lay war a doon mooy Pastef en tout cas valeurs yi ñuy xeex yëpp muy ànd sàmm jikko koy ànd sàmm jikko bu ñu ko waxee ñi nga xam ne tey ña nga ca bois sacré ba. chrétien bi protestant bi musulman bi parce que am na loo xam ne ñun ñoo ko bokk. kon dañu ne leen parti bi wala coalition bi mooy ki gën a wàccoog yooyu parce que fi ñu jaar fu bari. ma ne ko buñ sañoon loolu mu xaarandi ba ñaar ñi ko seq. Mhm. génn. Mhm. ñu dog leen ci interpellé bi biñ ko indee waa Modap ñoom it xalaat bi ma ci am. ñu mhm. bari sax am na ci loo xam ne wuute nañ ne non day dañ parce que lii nangam nangam mais biñ waxtaanee ak ak président Diomaye xam nañu ne am na ay alliés yoo xam ne bi ñu ñëwee ci affaire yi ñoom dañoo gisoon ne li ñu gis ci comme protocole de Maputo bu dee ci côté boobu côté jigéen ñi ci li ñuy wax avortement nangam nangam ak yooyu mais am ci ñoo xam ne le mot genre les nouveaux droits ak yooyu ñoom peut-être que ñoom dérangé wu leen duggu na ci biir mais bi ñu ko waxee waa Modab wax ko waa Modab xaar ma wax Aliou mu indil ko ndox voilà waa Modab wax ko voilà. waa Modaab wax ko. Hmm. ak imaam Ahmed Dame Ndiaye kii na leen ci interpellé na leen ci. Hmm. mais dañoo gis ne dañ koo dindi ba mu set. Hmm. kon loolu nga xam ne biñ ko waxee te fekku leen woon ko fi dañ koo dindi ba mu set. mais noonu la ñu ñëwee fekk am ñoo xam ne peut-être que ñu nekkoon ci bitti Ousmane ko yor leen ngay ak yooyu kenn ku nekk di dugg. compris même Samba Ndiaye boobu mënoon naa am Ousmane ko doon ko woon accepté même bu dee ne da jàppale jàppale pour jàppale mais lu man a am mooy nekkoon na ci te ñun amuñu woon vigilance bi ñu am tey ba ne bu mu ci dugg jamono bi muy ñëw di adhéré bokk ci woon man nekk na nit boo xam ne daanaka yi ma ko fekk ci kiiwu jomaa yëpp kiiwu maag moom maanaam yàllaa dogal maa ngi naan kii ban genre kanam la may kii sequmaag moom sa wax te pourtant man 47 personnes yi njëkk a nekk waxuma 111 yi 111 yi moom ci nekk xaj na man ni ma kanamam soofee xaw ma lu tax mais mën naa nekk loolu mais comme li président Diomaye wax day day am léegi ñu nekk ci coalition parce que bi ñuy waaj a tànn euh, mbir mi ci coalition bi wax nañ bañ euh, ci coalition président Diomaye muy la jël nañ fa moom mu ñëw ci biir bi mu ñëwee ay nit gis ne démbam dab na ko ci wax yi mu wax ñooñu mu naqari en tout cas ku ci déglu loolu ñu teg ko sa kilifa ku ko ci masa teg ba pare ñëw dana la naqari nga naqarlu ko sa droit la te loolu la président Diomaye wax te lii la ñu war a yàggaama ah, mooy président boo xam ne ñun du ñu ay mala dañu ay nit lañ comme kii dafa am lu ñuy naqari ak leneen ak leneen ak leneen émotion boobu nit mënu ko dindi ci àdduna nit ñi dañuy naqarlu léegi nag ki émotion boobu war a jàpp. te bu la jàppee sa poste bi nga diriger tey muy ki jiite CDC wala ki jiite port warul woon a yem ak benn saawolof wala benn militant de lambda parce que dafa am responsabilité responsabilité boo xasee yor président Diomaye da nga yaakaar ne lii mu dégg nii neexu ko président Diomaye gisuma ko gën a bëgg euh, président wu Pastef muy Ousmane Sonko wax na ko waxaat ko waxaat ko campagnal na ma dix ans campagnal naa ko dix ans gañewul mu campagnal ma fukki fan ma gañe mais nag dafa am responsabilité boo xam ne en tant que président de la république président de tous les sénégalais mënuma ŋàññi Macky Sall ci ni mu doon doxale ba pare may ñëw di wax président Diomaye même bu dee waa ku sikk la waa ji ta moom moo waroon a am jomi boppam parce que man li may wax rek bi ma wenn waay waxee ne dañ ko wax ma leen kii du démissionné parce que kii li mu wax Ousmane Sonko ba pare ñëwaat biir Diomaye président te ni mu ko waxee Ousmane Sonko noonu la ko waxee président Diomaye taxé ñu des terroristes taxé ñu des nangam ak nangam lu ne mu taxé ñu ko ba pare daal di ba ah waaw naa koo may. kii saa saa taxawal yaa une chose xam nga xam nga yéen tamit coalition ngeen wax. coalition mhm. eh, ay parti politique ay mouvement lay dajale. Mhm. ce qui contradictoire mooy démb. Mhm. Euh, Aminata Touré di Mimi. moi je n'ai rien contre mais mais dama dama bëgg ñëw rek ñu contextualiser li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee euh, bi muy nekk ci APR moom ak euh, le président Ousmane Sonko des Patriotes doon nañ sàn jokkalante ay kàddu. Mhm. waaw wala déet. nekkuñu fii ci période campagne Mimi naan ko doo bokk. waaw naan ko tata Mimi yow doo bokk. ak yeneen loolu da nga koo xaaral ma ñëw non non pas lu ñaaw mais fi ngeen bëgg a jël wax ji nii. Samba Ndiaye da doon ŋàññi ki nga xamante ni moo di moo di. pas pas Pastef yi non non dafa yow waa léegi xaaral ma ñëw saa rek dama dama dama bu bu waa léegi xaaral ma ñëw bu ma continuer du ma perdre sama ko perdre. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw. Mimi Touré ak euh, nañ fi ci période. wax nañ fi avancé da ngay wax wala nga wax nañ fi ñoom ñaar léegi après non xaaral ma ñëw rek. xaaral ma ñëw saa xam nga ñoom ñaar waaw dama laa dégg dama la delloo kàddu gi xaaral ma ñëw ñu ko daal sama xam nga xam nga mimi xam nga mimi non non non déedéet jàppal mais teewul léegi léegi nii actuellement est-ce que mimi rejoindre leen nag attention journaliste soit professionnel man maa nekk di wax man maa koy may wala ma bañ koo may waaw mais yaa ma may déedéet ba nga may may dama lay wax nga def vite fait soit dara waaye léegi saa. waaw waaw waaye léegi mu ngi gudd yaa ma may. léegi da dafa am waaye léegi jëlal ko kon soo ma. nag loolu la ko tax nga. nag mu la lancé un a yoru toog bàyyi ba ma xam ne maa am kàddu gi. damaa xam ne boo ko waxee dama bëgg a lan la Samba Ndiaye wax. non li ma wax sama génn. def développé lu yàgg yàgg yàgg ak yooyu du ma arrangé. ok rek yëg la yëg la wax am lu mi mi wax. ok mi li wax lu gën a ñaaw mooy nga jàpp ne lu gën a ñaaw mooy yoruma carnet Sweet Beauté est-ce que moo ko yor ak ban boo xamaatee beneen bu ñaaw wax ma mais wax na fi wax na fi. non non premier euh, ministre Ousmane Sonko moom mooy insi moom insiqué les Sénégalais kii pour ñu génn manifester. la les manifestations. d'accord waaw d'accord waaw moo leen insister man moo leen insister man nga koo gis nit ki mën naa taxaw ne c'est un procès mhm. yow nga déggee ci ne loolu mooy génn leen. mais au ci côté loi bu ñu taxawee kenn ku nekk ak sa responsabilité loolu xalaatam la yegg ci nag di wax ne kii moo def lii ak lii ak kàddu yi ñaaw comme yi maam Mbaye doon wax est-ce que Mimi mas naa wax loolu yow laay déglu. ak déedéet doo ma laaj. non non. kon ma tàggee da nga ma yoon ma jël ma nangu ma yoon. da ngaa ñëw rek waxal. ma xalaat. da ngaa ñëw yëngu rek waxal. non non bàyyi ko waxal. ñaanu ma déedéet ñaan naa la may na ma nangu ba léegi ba léegi saa jëlal ndax ma la. yow ndax ma dagg la duñ ko wax yow itam. xam nga tu as interpellé la ndax danga ni ma en tant que professionnel. moo tax ma wax la li ma la wax yow itam ça continue pare. yëgale saa yëgale. <laughs> xam nga euh, maanaam débat li ngay bëgg ñu def la ko da koy def nit ñi Samba Ndiaye dafa am lu mu wax. Mimi ah. Touré am lu mu wax. moom mënul wax lu raw li ma wax nii ci côté lu Mimi Touré wax muy li nga wax ak li ma wax. Mm-hmm. léegi waxi sàmba Ndiaye boo ko ak Mimi kan kan la la ci waxam di gën a naqari ci ñaar ñi Mimi ñëw na bi muy ñëw waa Pastef mooy jour bi muy nekk ak AKPES am na ñu doon yuuxu mhm. am na ñoo xam ne bi ñuy yuuxu maa ngi leen di dànkaafu euh, loolu mu leen naqari wax nañ ko ko Ousmane Sonko mi mu waroon a naqari taxaw na yemul ci baal ko mais taxaw di ko jàppale ba nit ñi accepté ko mhm. mais Samba Ndiaye ku mu neex boo ko accepté wut damaa bëgg bu ñuy wax démocratie bi ngeen di woolee di ko bàkkoo ak di jaay républicain da ngaam ngeen nangul ko nit ñi en tant que militant ci parti politique koo xam ne wax na sa kilifa lu ko neexul nga taxaw ŋàññi ko soo ko ŋàññee nag yow bul dem ba tooñ wax naa la ñenn rek ñoo ci tooñ parce que man awma problème boobu nee naa la bu dee directeur yi ñu dénk ndomba tànk parce que dafa am responsabilité bu ñu la jox loolu waroon na laa tax doo prononcé wu comme militant loolu boo ko bu waxut waxal naa la léegi nag da nga may wax fan la militant yi taxaw parce que président nag bu leen ko fi def yàlla wala ngeen def ko ci xalif général wala nanga ak nangam xalif général yi sax bu ñu waxee seen kàddu buñ ci àndul dañ cee war a wax suñu xalaat comme ni ñu ko doon defee yonent bi mhm. loolu moo ci nekk léegi président ñëw na joué rôle président am premier ministre lan la wax ba nga ciy wax des mesures correctives président Diomaye ci maandu gi bi ko ko Issa Tine laajee mu ko wax mu ne ko loolu ministre la kii benn ministre la concerné. waaw kay da ne comme monsieur da nga koy laaj. da ne comme ay propos. propos waaw ci propos la ci propos la. moom waaw moom la ñuy interpellé. loolu noonu loo ci déglu ma. déglu ma rek tam gis nga yéen da ngeen di jël wax tuxal ko pare abal ko nit bëgg a tonk ci wetam. daala nag nangul loo na parce que animateur nga kii journaliste la mais yenn yi gis nga wax da ngeen da ngeen koy yamale fi mu yem. loolu comme ay pro propos la moom lañ ci interpellé mhm. maanaam en tant que premier ministre. moom lañ nar a laajte voilà moom lañ nar a interpellé laaj ko ci loolu. waaw kooku nekk chef de parti. ba pare nekk premier ministre moom moo gën a habilité président Diomaye ci wax loolu. mesure corrective corrective correctif bu ñu ko waxee bokkul ak yow lan nga wax sànq am na baat boo wax sànq te lu mu doon ma ma ma la correctif la wax am na am na loo wax ratifié du noonu nga waxoon sax. waaw ratifié da ngay nangu correctif bu ñu ko waxee yàlla moo correction même bu dee dégguma tubaab. correctif du du du du du joyanti. waaw waaw joyanti. du corriger waaw waaw déedéet. ah déedéet non non ratifié nga wax. waaw mais. ratifié nga wax boo juumee da ngay nangu da ngaa juum. waaw sax loolu la bokku ci même kii même contexte dama ne contexte boo ko mën a dugal yow dégg ko ni la lim la neexee. mais bu ñu nee euh, nu mu tuddati euh, monsieur l' économiste. yaakaar naa <laughs> ratifié ak. ak ak ak correctif. corriger corriger mën ngaa tiim dara xool ba pare delloo ko ca nam meloon wala nga gën a jox sax confiance Samba Ndiaye maanaam jëlee ko sax léegi PCA ñëw def ko ministre loolu mën nga loolu ba tey day dugg ci mesure corrective attention ci baat yi ñi gis nga leen. ko lu tax non dama ne la mooy nga def dara soppiwaat ko. correctif mooy ñoŋal wala nga wala nga gën a euh, jubbanti. gën a jubbanti boobu mën naa nekk nga delloo waa ay pouvoir mën naa nekk nga bàyyi ko fa mu nekk parce que bu ñu nee danañ ci jël ay mesures correctives. mooy tey day sax laalaale ñi nga xam ne tey muy DG yi ci wax ak <laughs> militants yi ci wax ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen. gis nga attention ah sequ leen ko ak ay ay ay ay ay na ay naq sa xandal danaa comprendre li ñuy nag bu ñu nekkee ci ginnaaw. yenn euh, opposition layam layam gaaw a jooy ak yooyu nga xam ne ci ay émotion la ñuy dox ak yu demee noonu mën naa leen a nangul ñu jàpp ne ni seen waay yi wala seen xarit yi mel noonu la ñu mel fekk na ñun même baat yi ñuy jëfandikoo sax dañ koy tànn loolu dàqantewut ak joxaat Samba Ndiaye pouvoir dàqantewut ak wàcceeku pour man nañu jël xam ne jamono bi Sénégal mi ngi gañe xam nga lu Sénégal di gañe mooy am nañu président bu mat li mu doon am nañ première ministre boo xam ne li mu wax gisoo ko ci loo ko ci joxoñe baaraam am nañu citoyen yoo xam ne comme ni ko Ousmane ko waxee ñi ngi nekk di xool parce que dañoo am passé boo xam ne moom la ñuy bàyyi xel ay nit yoo xam ne dañoo gis ne dafa ñoo xeex benn projet ba yegg si fii ñi taxawoon tey ñu doon demandé CV dafa am nit ñu taxawoon joxe seen ay bakkan loolu joxe woon seen ay bakkan bu ñu séenee nit yu doon encouragé yenn affaires yi man dama jàpp ne Samba Ndiaye waruñ ko woon a accepté Diomaye président ko nag te loolu mooy li président wax parce que dafa wax ak directeur yi kàddoom da nga ciy dégg ne directeur yi juum ngeen mais da ciy dégg ne en tant que militant am ngeen droit ci li ngeen am droit parce que président la gënuma leen dama leen a jiite man ngaa teg dara te bu ngeen ci ngeen gis ne lii du yoon sa xam nga le président excuse-moi juste kii euh, man mm-hmm. pense que y a deux tableaux mm-hmm. président euh, génn après lu mu signé euh, pacte de bonne